لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهاته إلى يوم الدين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونحن لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسعى ونهفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك الجد بالكفار ملحق suma mbokk yi man imaam Adama Seck maa dellu di jël nuyoo bu sell di ko teg ci loxo Oreilles du Monde TV di ko ñaan mu jottalil ma ko bépp sénégalais fu mu mën a toll ci biir réew mi ci bitim réew mi di mag di ndaw di góor di jigéen ñëpp ma di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah dinay di baax ci wàllu liggéey bi ñuy aimé li nga xamante ne moo di suñu ay vidéo te itam di koy di partager ni ñu ko mané ndax fàttalinte la te yonent bi moo ñu sant ba dakkir fa inna dikra tanfaul muminin fa tabarakallahu ñu dugg ci waxtaan bi mbokk yi umpalew leen ni jamono ji ñoo ngi dëkkmal élection présidentielle mu di xéewal gu ñu yàlla defal ñu war ko xame noonu ndax mbokk yi doomu aadama ak doomu aadama mënuñoo àtte seen bopp ndax yàlla dafa ne inna nafsa la amaaratun bi suu bakkanu doomu aadama foo ko fekk bakkanam lay topp te buñ ko bàyyi woon ak bakkan boobu dina lor moroomam ndax doom aadama dafa matul te li mu soxla noonu la ko moroomam soxlaa ba tax na l'homme ne peut pas être juge partie kenn manta nekk attekat ba noppi nag ne nekk di koo xam ne da ngay moo tax loolu nag pour régler boobu la problème loolu moo tax yàlla ne man maa leen di atte loolu moo tax mu jox nu yoon yoon ni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daxa dali wax ni laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna maahum alkitaba wal mizan li yaquma annaasu bil qist dina maa yónni suma yonent suma ay yonent jox leen téere jox leen justice ndax nit ñi mën a tegu ci yoon mën a dund ci jàmm bon justice mooy indi jàmm malheureusement boo leen nemmeekoo fukki at ak ñaar yi weesu ki nga xamante la ñu dénk dëkk bi dafa salfaañi li nga xamante ni moo di àtteeg tooñ gi lépp def ko ngir boppam on yëkk woon mu àtte nit ñi dafay xool li mu bëgg ne loolu laay dox képp ku dox suma yoon ma tuumaal la bu ma la tuumaalee teg la ci côté ndax continuer suma yoon noonu la def Khalifa Sall noonu la def Karim Wade sa Seck ba mu xamee loolu mu dal di daw rejoindre Macky Sall ànd ak moom def ak moom mburoog soow ci élection deux mille dix neuf boo leen ko seetloo moo bindoon benn téere document bu rëy di ci wax ne Macky Sall dafa sàcc élection yi dem na ba mu yàgg nag mu dem ànd ak ci sàcc pour ngeen xam ne mbokk yi ñi ma la tuddal foofu ñooñu ñëpp bu di xay Karim Wade Khalifa Sall Kajoor ak amaduba ñii ñëpp boo leen seetee candidat France lañu du ñu candidat Sénégal boo leen demee ci BBC mu ngi wax ni ñii dañu am nationalité française bon nag seen comportement du la jaaxal bu ñu demee di def burok sow ak koo xam ni salfaañe suñu justice bi ñu ko dénk ngir mu aar suñu ay droit loolu mooy manœuvre ba tax na mbokk yi fokk ñu wax ak yéen ndax ñu xam élection yi ñuy ba dëkk ma lan la élection mbokk yi du caaxaan ndax li mu doon mooy juróomu at yu nekk dañu may peuple bi ngir ñu soppi ni ñuy doxale bu fekkee ne gis nañu loo xam ne neexu leen te yaakaar naa ni Sénégal yi yépp même ànd nañu ci am lu leen naxari ci gouvernance bi ñu am ndaxte tey ñaati hôpital dañ fa am ay crise yu nganda nganda suñu ay doom di dee ci hôpitaux yi ñaata accident lañu am de la route xam ne ay bakkan yu bari ñoo fi ñoo ci rot prison yi fees nañu del ku bëgg a dund ci jeunes yi foo mën a jaar nga jël géej gi ngir jéem a dem ci dëkk tubaab yi ngir nga mën a dund foofu te boo fa demee li ñu lay considéré mooy kii li maamam de bañoon démb moom la nangu tey gouvernance gi moo fi am may fàttali toujours mbokk yi que ni nit boo bëggee faj feebar fokk da nga war a xam feebar bi lu ko indi feebar bi mbokk yi li ko indi mooy ñun ba tey dañoo amul indépendance lu tax ndax mbokk yi dañu war a fàttaliku histoire tubaab bi dafa ñëw fii fekk ñu ñuy dund dund gu neex te tegu ci yoon mu ñëw lu ko tax a ñëw ndax dañu ko duma fële ci Europe xajatu fa ñu teg ko ay daan teg ko ay bor bu war a fay loolu ne Sénégal laa koy faje Sénégal la njëkk ñëw moo tax Sénégal mooy premier pays boo xam ne moo war a njëkk a libéré boppam bu libéré boppam ci la Afrique di doo ko mën a libre tant que Sénégal libre Afrique du libre ak ku leen mën a wax lu ñu leen mën a wax du ngeen mës sa mën a libre ndax dëkk bu ndaw mënta libre dëkk bu ndaw mënta libre ndax dëkk bu ndaw dafa soxla éducation maximale emploi maximal exportation maximale waaw fan ngay exporter bu fekk ne dëkk bu ndaw nga dëkk bu ndaw fan ngay exporter doo mën a am non simplement que doo mën a exporter mais doo mën a am industrialisation te kuy bay tamaate ak kuy defar ay oto du ñu yem boo leen bëggee xam les pays yi pauvre lu tax ñu pauvre ak dëkk yu riche lu tax ñu riche lu dara lu dul nañuy liggéeyee kii di bay tamaate ak kii nga xamante ne mooy defar ay oto du ñu benn loolu moo lay xamul différence bi nekk si ñun ak dëkk yu dëkk yu mag yi waaw lu waral loolu suñu matière première dañu ko moomul wax na leen fi ba tàyyi bi or bi zircon bi marbre bi gaz bi pétrole bi moomuñu ko. malheureusement ñu bari ci ñun duñu gis alal ne ma dem jël alal ci foog ma bokk ci euh, ma gagné ah, élection yi xooluloo sax ndax mën def wala def la wolof di wax ni nous bu maytuwul ba ñu gaynde xetu ñax dina ko xam-xam bu di wax ni un peuple de moutons finira toujours par engendrer un gouvernement de loup peuple lu xar foo leen mën a jaar ngeen am gouvernement boo xam ne ay bukki la ñuy doon ñu di leen lekk guddi ak bëccëg mbokk yi dañu am problème France mu ngi ñuy coloniser ba tey France ba tey président bi falu ci Sénégal président français la Macky Sall président France la Amadou Ba mi bëgg jël la relève an candidat France la wax na leen ko ba mu leer wax na leen ne France fa bi duma ko du ko changé képp ku taxaw na leen du ma changé France fa xamal ne kooku kooku ci boppam français la déggul koo leen déggul mu wax leen loo rek xamal ne candidat français la loolu neex na dëkk na takk dëkk takk ah France dafa am ay candidats yu bari dugal leen ci biir élection yi waaw ah, boo leen seetloo di ngeen gis ne France tey RFI ni mu intéressé wu ci élection Sénégal journaliste Sénégal ak pressu Sénégal sax intéressé wu lu tax ndaxte de ndaxti alal ci nga xamante ne moo nekk Sénégal lañuy bañ mu nekk pour waa Sénégal France alali Sénégal lay xuccoo ak waa Sénégal. loolu moo tax ba ñu amee indépendance moo ñu falal président jox ñu Senghor imposé nu Senghor suñu ay marabu masla ak moom ñu ànd ak Senghor yaakaar ne Senghor dina def yoon wante sengoor mante nax kenn ba mu laata sori nga dégg ay borom yi xam-xam di wax ne bët yi ma gis de bëti naa fekk bëti warkat la kooku moo njëkk war senegal président bi ci top Abdou Abdou Diouf ñëw gëna warat Sénégal Abdoulaye Wade ñëw warat Sénégal Macky Sall ñëw warat Sénégal ay war rek lañu ñuy ba mu ñëwé nak dox ñu président daf ci tek armée ba nopi nak imposé ñu esclavage monétaire ñu am monnaie ñu am monnaie monnaie bi ñuy am français ko mom ngeen di fay pour ngeen am monnaie pour ngeen jëfëndiko xaaliss nga mën a defar sa monnaie dëkk yi anglais yëpp du ñu am seen monnaie yow nga mën a def sa monnaie mais nga nga jël monnaie jàmbur di fay ci monnaie jàmbur ba tax doo mën a industrialiser sa dëkk mbokk yi foog ñu xam ni France rek du suñu noonu beneen noon bi mbokk yi mooy Amérique Amérique dafa lal programme après la deuxième guerre mondiale dafa def lu ñu la polarisation du monde monde bi daf ko dafa ay pôle ku nekk mu tracé la fi nga war a lekk loolu nag li muy tekki ci gàttal mooy matière première yi dëkk yu ndaw yi moomuñu ko képp ko laal matière première yi dal leen ci kaw moo tax matière première dëkk dëkk yu ndaw yi li ñu man yépp mooy jaay matière première yi jox ko tubaab yi te buñ koy joxee tubaab yi li muy tekki mooy du ñu mën a liggéey ndax matière première du ñu la ñu liggéey limo mo indi pauvreté bi mbokk yi ba tax na tey ñun ñuy reyante suñu biir te tubaab ba dafa wax ni ah il ne peut y avoir de vertu dans la pauvreté et dans la misère waaw jikko ju man ta am fu nit ñoo ñu ak ñak day indi lu nekk motax tax ali ibn abdul wax ne law kana al faqru rajulan la qataltu ñàkk bu nekkon nit ma ray ko dina dina dagana ray ñun ñu nangu ak ñak am suñu alal ba bëgg a dee mënuñu kaa jëfandikoo tubaab yi ñoo koy jëfandikoo lii est-ce que du du gàcce lii moo tax bu ñu bëggee liggéey foog ñu dem ci dëkk tubaab yi ndax wax naa leen ko fi mbokk yi dafa am ñetti type type de de de de chômage cyclique mooy chômage boo xam ni day am jamono deetul am jamono comme boo dee bay chômage temporaire mooy amoon naa liggéey maa ngi xaar beneen liggéey chômage structurel nag mooy chômage bi nga xamante ni yow liggéey bi nga bëgg amu fi matière première yi liggéey yi koy procédé amu fi moo tax foog jeunes yi dem ci dëkku tubaab tubaab bi tey am na ñoo xam ne ñu ngi commencé di jël ay multinationales di ko indi suñuy dëkk di jël matière première yi di ko procédé ndax lan ndax transport bi ak ak nangam yi bañ leen ca fekk mais ba tey ñoo ko moom pour ngeen xam ne mbokk yi ñun dañoo teg suñu bopp lu ñu yàlla tegul. mbokk yi complot bi yàgg na foog ñu xam ne ñun ci complot lañuy dox nañu bàyyi xel que ni en 1907 Angleterre ministre des affaires étrangères bu Angleterre dafa organiser benn jataay pour dëkk européen di leen wax ni leen civilisation yépp dañuy am benn jamono ñu jokk am benn jamono ñu daanu. civilisation égyptienne ku nekk xam na ko ñu tabax pyramide yi xam ne te kenn mënu ko xalaat kenn mësu ko def feneen amul beneen dëkk bu defar ay pyramide Afrique rek ñoo ko mas a def civilisation boobu xam ne bën na gën na tubaab yaa ngi koy jàng ah égyptologie ba tey am na ñu koy jàng Cheikh Anta Diop yàlla bayoon na ko ci xam-xam mu trouvé ci ay xam-xam yoo xam ni mu adduna baa ngi koy jariñoo gën a gën boobu ba mu demee. dem nañu Chine dem nañu civilisation islamique ñu bàyyi ko nag léegi nag ñëw civilisation occidentale gannaaw bu ñu bàyyee grec yeeg latin civilisation occidentale bi ñu am nii nag ñoom ñu ngi euh, dellu ci lan ci romain yi waaw nañ doon dundee doole lañ doon jëfandikoo ñooñu nag mbokk yi tey civilisation boobu dañu ne naka la ñuy fexe ba suñu civilisation bi continuer continuer di màgg du masa daanu loolu nag ñu tekk ay tomb ñu ne bi ci jëkk mooy pays africain yi pays africain yi dañoo bëgg libéré wu ku nekk xam na loolu dañoo bëgg libéré nañu fexe ba bu ñu masa libre bu ñu masa am indépendance 1907 bu dee nag pays arab yi ñu ne ñii am nañu bépp moyen bépp capacité bépp opportunité pour mën a développer nañu fexe ba bu ñu mës a développé léegi naka la ñuy def nañu fexe ba diviser leen bu ñu mën a ànd loolu moo tax ñu jël Israël def ko ci xolu pays araab yi ndax araab yi du ñu mës a mën a jokkoo bu ñu laata mën a jokkoo foog ñu jaar ci Israël moo tax Israël taxaw léegi nag baare Afrique du Nord ak Asie bu ñu jokkoo nañu diviser wu bu ko defee nag léegi nag ñu fal fa ay président yoo xam ni ak ay buur yoo xam ni du ñu jubboo ak ak ñi nga xamante du ñu ay buur waaw te ku nekk xam na ne benn baaram mënta yëkkati aw xeer lii moo tax pays arabe yi mënuñu nekk benn musulman yi partout dans le monde ñu jox leen ay buur yoo xam ni gëmuñu yàlla du ñu ay jullit ñu jël seeni peuple def leen ay yéefar aw yéefar naka lay naka naka lay développé yéefar naka lay développé ah ab yéefar naka lay développé te yàlla wax ci alquran ne fal yaabudu rabba hada al bayt alladi atamahu min ju wa amanahu min xawf ni ko Abdullah ibnu Abbas firee mooy boo leen jaamoo yàlla mu may leen koom boo leen jaamoo yàlla mu may leen jàmm fa man aarada an dikri fa inna lahu maisatan dankan képp ku teggee ko suma yoon si dund day naxani waaw ñun ñu bëgg a def suñu bopp ay yéefar ba noppi nag bëgg yàlla teral ñu yàlla du noonu yàlla amul benn intérêt ci programme du jariñu ci programme bi ñun ñooy jariñu ci programme yàlla soxlawul yooyu soxlawul dara moo tax mbokk yi problème bi yëpp mooy dafa am benn duo bu nekk ci monde képp ku ko xamul doo mën a développer duo boobu mooy diine mooy politique ak religion malheureusement ñu bari ci ñun xamuñu lan mooy religion ñu bari ci ñun xamuñu lan mooy politique religion mooy diggante nit ki ak boromam diggante nit ki ak boromam loolu la ñu tudde religion diggante boobu ku nekk xam na ne yàlla am na diggante boobu la ñu tudde religion mooy pas-pas côté boobu c'est optionnel ku mu neex nga def ku mu neex doo def naafila la mais beneen diggante bi mooy diggante nit ak moroomam diggante nit ak moroomam loolu beneen réalité la ndax nit du yàlla dafa am seen diggante nuñ koy organiser ah côté boobu nag mu ngi demee obligatoire la mu neex la mu naxar da koy def comme code de la route code de la route buñ ko tegul lay yoon fokk accident am mais kan mooy teg yoon bi doomu aadama ak doomu aadama l'homme est mauvais juge pour soi-même nit mënta àtte boppam mënta sax seede boppam loolu moo tax nag From aadama yàlla may ñu yonent jox ñu yoonu yàlla pour mu war ñu àtte loolu moo tax justice yalla ko moom yàllaa ko moom bu ko defee ni ko yàlla defee keroog la ñuy doog a am lay keroog lañ ko dul ñàkk moo tax benn waay bu ñu Michael Hart dal di wax ne my choice of Muhammad to lead the list of the most influential person may surprise some readers and may be questioned by others but he is the only man in history who was supremely successful in both the religious and the secular spheres. It is this unparalleled combination of religious and secular influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history. Natannabi Matanna Muhammad que ne téeméeri yi gën réussir ci monde bi mooy seen maam mooy seen baay mu ne dina ñenn ñi te dina am ñu muy jaaxal wante moom rek moo sa a boole laïcité ak diine ak ak ak lan ak religion ni la ko waxee laïcité ak religion bon naka la diine di xeexee ak kéefër yonent bi naka lay defee diine ak kéefër bu fekkee ne laïcité mooy kéefër moo tax ma ne mbokk yi képp ku weddi laïcité yéefar la képp ko weddi laïcité ab yëfar la ndax laïcité mooy nga appliquer charia nga bañ a appliquer nga bañ a euh, li nga xamante ne moo di passe-passe bi ndax bii c'est optionnel bi c'est obligatoire appliquer li obligatoire ci ñëpp mais li nga xamante ne obligatoire ci ñëpp nga bàyyi la ku ci nekk loo xam nga def loolu mooy séparer la politique et la religion ñun ñu ne laïcité mooy weddi yàlla ba xam na tey bu ñu dee fal ay nit du ñu fal kenn koo xam ne am na diine wala jàng na diine jàng na charia mbokk yi képp ku weddi laïcité ab yéefare gi noonu jàppal lu tax ndaxte ku weddi laïcité weddi charia ku weddi charia weddi yàlla ndax yàlla moo ne wa man lam yaxkum bi ma anzalallah fa layka mal kaafiroon ku attewul ci atte benn kooku yéefar la xool leen lii moo tax mbokk yi bi ngeen di fal ay candidat yoo xam ne amuñu benn légitimité defuñu tey charia tey muy seen métier lii moo tax France di ñu jox ay président yoo xam ni du ñu légal bu ñu ñëwee liggéeyal France bàyyi ñu trahir ñu li moo indi pauvreté bi pour ñu faj loolu mbokk yi foog ñu xam ne élection jihad la jihad nag des fois mu nekk ak jaasi wante mooy bépp effort booy mën a def waaw effort bu mag a mag a mag boo mën a def effort bi ñu dëkk mal nag mooy mbokk yi waxuma la ne da ngay yore jaasi wala ngay xeex doomu aadama jihaad bi mooy lan nga fexe noot sa bakkan fexe ba ku la jéem a nax bu ko nangu nga fexe ba jël sa carte boobu nga fexe ba dem nga jox ko kii nga xamante ne moo di Bassirou Diomaye fay ndaxte kat mbokk yi kii mooy candidat Sénégal kii mooy candidat Sénégal candidat l'islam mooy kii mbokk yi candidat bi ñuy boole waa Sénégal mooy kii ndaxte li tax mbokk yi du par parloo ndax mbokk yi loo gis métier la boo demee France ki nga xamante ne mooy gouverner France foog mu génn ci école les grandes écoles grandes écoles mooy école yu mag yi ci missal école nationale des administrateurs foofu la Ousmane ko génne foofu la Bachir Diomaye génne école boobu mbokk yi mooy jàngal nit ki naka la dëkk bi war a doxee lan mooy intérêt dëkk bi nga mën ko xam. ñii nag loolu foofu la ñu génnee loolu moo tax ñoom ñu defar parti politique ngir fexe bi génn Sénégal ci toroxte bi ñu nekk di ko dundee boo demee fu mel ni Angleterre foog nga génne seeni dirigeant ñu ngi génn ci ñaari école école Cambridge ak ak euh, université Cambridge ak Oxford lu tax ndax ñoo ñooy jàngale économie ak politique ak philosophie mbokk yi lii may wax nii c'est pour ngeen xam ne politique métier la ñun Sénégal ne defuñu ko métier lii moo tax mbokk yi ku nekk mën a ñëw jël ko moom daal ni ko Abdou Diouf waxe woon jàkk jaa ngi noonu ku mën a nodd noddal te fekk du loolu mbokk yi métier la métier la mbokk yi moo tax mbokk yi maa ngi leen di joxañ Bassirou Diomaye Faye nañu ànd ñun ñëpp ñu bañ a parparloo ñu ànd ak moom ñu libéré suñu dëkk ndax mbokk yi enjeu bi du diggante ma Massamba ak ma Mademba enjeu bi dëggantaan li mu doon mooy mooy ndax ñun mbokk yi mën nañoo booloo booleew booloo laïcité moo nuy boole ndax naka ndax laïcité moo ñuy may charia charia moo ñu mën a boole ndax charia moom la ñëpp bokk doomu aadama yëpp moom la ñu bokk mbokk yi bu ñu àndee ci lañu bokk ñun ñëpp ñu bàyyi lu ñu bokkul ñu maslaa ci loolu mooy la laïcité malheureusement ñun ñoo ngi koy caaxaane te moo ñuy aar ndax bu ñu amulee charia mooy amuñu yoon yoon boo nag bu ñu ko amulee mooy doomu aadama mooy fàdd morom loolu mooy réalisme boobu la idéologie mooy dox Sénégal ba tey te moo indi woon première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale tubaab bi bi ñu bëggee développé dañu bàyyi boobu la idéologie jël idéologie idéaliste loolu moo leen jox démocratie tey ñu am jaam jàmmani tey ñun ba tey ñuy weddi laïcité di weddi charia di weddi idéalisme mbokk yi par parloo bi day na Sénégal ñetti profil rek ñoo fi am ñetti profil yi candidature moo fi am premier profil bi mooy profilu marabu marabu buy def politique waaw contourner loi bi dem seeti benn taalibeem na ko yow yaay jël suma parti nga dem représenter suma parti contourner loi bi was'alhum anil qaryati allati kaanat haadirat al bahr إذ يعدون في السبت استعتيم هيت عنهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك دبلهم بما كانوا يفسقون آه. فأمون تبنو إسرائيل بين فيلاج بنا كنت وتجي يالا دي لن نتو نلين بسو سامدي بلن نب xam nga nu ñu def dañu dem bésu ajjuma lal seeni دو bésu samedi du ñu du ñu napp ba su dimanche ñu dem xëcc mbaal contourner loi bi yàlla li mu tere nga dem contourner ko ngir mën a def lekk fekk da nga mel ne koy naxaat mara bu bu fi def politique loolu lay def dafa contourner loi bi au lieu yow nga présent imaginer sëriñ boobu bu taxawoon ne damay damay def suma candidature Touba defar noonu sëriñ Babacar man su def noonu Yoff def noonu Ndiassane def noonu bon loolu mooy nekk islam mooy rendi l'islam loolu moo tax candidature marabu légalul kan marabu boobu bu jëloon tey ay taalibeem na leen dem leen ngeen ànd ak Bassirou Diomaye premier tour Bassirou Bassirou Diomaye génn Sénégal libre li moo tax mbokk yi yëf li sellal ngir yàlla def ci baax profil boobu mbokk yi marabu dafa am ay taalibeem bu marabu yëpp indee seen candidature l'islam dina xeex l'islam te loolu fanatisme lay indi sa boo xam ni te mara bu kenn du ko critiquer kenn du critiquer tariqa kenn du critiquer pas-pas yoolu loolu optionnel la ku mu neex nga def ku mu neex doo def pour nga xam ne mbokk yi ñàkk xam moo ñu yóbbee li ñu dalte bu ñu def esclave ku dégg ba ñuy mara bu yoo xam ne dañuy def politique ul jëkkoon ñu libéré askan ngeen wane seen doole bu yëpp am nañu am nañu doole te kenn mënu leen a comparé ci kanamu yàlla lañ koy atte beneen profil bi mooy ay athée lu tax tey marabu boobu mën a def politique li tax mooy ñi nga xamante ne maanaam ñoo yore nguur gi ñu leen a attaqué ñu leen a tere lu tax gënu gënuñu leen a legal li Serigne Cheikh waxoon mu ne extrémisme laïque mënta gën extrémisme religieux mënu ko nekk ku weddi yàlla mënta gën ku gëm yàlla pour ngeen xam ne lii mooy problème yi profil yooyu na baaxu ci te ñun yële ñoo la ñu am ab religieux ak ab athée la ñu am amaguñu benn yoon profilu laïque ndax dañu gëm ne laïcité mooy weddi yàlla imaam yi jàng daara xam ne ñoo jàng charia ñooñu ñooy profilu laïque te malheureusement ñoom dañu daw ndax dañu weddi loolu lu tax ndax ñoom ku ci nekk li nga jàng ne li nga xam da ko def alquran te doomu aadama nag wa maa utiitum minal ilmi illaa lii moo tax mbokk yi ñetti profil yi lii moo tax mbokk yi ñun mënuñoo développé toujours ñuy rey suñu bopp taxaw di wax du def dara moo tax mbokk yi ma ne yàlla bu ñu wërsëgalee candidat boo xam ni jàng na ci ENA def na ca formation te génne taxaw tey jàng diineem dama nemmeeku Bassirou Diomaye Faye kii nga xamante ne mooy professeur Omar jaañ Cheikh Omar jaañ xam ne moom la nekkaloon ci prison yi nee na Bassirou Diomaye Faye day jàng alquran day wàcce kaamil mbokk yi première fois de l'histoire du Sénégal ñu am président boo xam ne jullit la président boo xam ne dafay jàng naka la ñuy gouverner dëkk ba noppi nag ab jullit la di jàng alquran première fois ñuy am président buy jàng alquran Ousmane Sonko ak kii nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye lu tax ñuy sàggane lii mbokk yi bu par par loo amul ci ñun dañ ñu def li mbokk yi ñu libéré suñu dëkk enjeu bi wax naa leen ko que ne du enjeu bi du ma sàmba ak ma demba Sénégal Sénégal la ak tubaab yi enjeu bi loolu la du affaire programme ndax programme mënu fee mënu fee gën programme ku fi wax da nga wax lii bàyyi lii mais li am solo mbokk yi mooy xool bi ak loxo bu set candidat yi ñu am nii te économie bi lañ doon liggéey te xaalis bi lañ doon liggéey impôt euh, inspecteur de tu tuuti ni kenn xamul leen benn sàcc bu ñu sàcc lu Sénégal ñii nga xamante ne la ñu sàcc alalu Sénégal ñoo ñooy candidat yi France ak ñoo xam ne dañuy jàppale dañuy ànd ak ay sàcc mbokk yi dañ leen ñu ubbi suñu xel yonent bi dafa wax ni ma min abdin yastarihi llahu raiyatan suma yamuutu yow ma yamuutu wa huwa gaashu li raiyati illa harrama la alil janna loolu mën nañ ko wax bépp borom kër boo xam ne yaa ngi wate nga dem wate ngir alal ju ñu la jox wala intérêt bu ñu la jox